fay naa la naa la mon ami waaw ku ne xam na ni ki xew la tey suñu xarit la suñu doomu ndey la suñu lépp la koo xam ne tey suba ak ngoon boo ñu gisee ñooy ànd koo xam ne tey lu ma sol yàlla ak yonent bi moom moo ma moom moo ko ñaw Ibrahima Cissé muy New Fashion Couture mu nekk nit ku am ambition nit ku baax ah nit ku mën li muy def moo tax tey bu xewlee foog ñu bàyyi suñu lépp ñëw toog teewee ko parce que tamit lii yëpp ay innovation la tey bi muy door tey metti woon na lool waaye tey yàllaa ngi def jàmm ba nga xam ni tey mi ngi innové di indi leneen loo xam ne tey xam nga tey fi mu indi place bi nii sax moom ma gën a neex muy banlieue bi tey ñu bari dañuy am seen alal bàyyi banlieue bi dugg feneen di ko fa def mais moom tey daf ne ma lépp lu ma am sama banlieue bi laa koy indi tey xam nga ni place bu rafetee nii bu luxe nii nga indi ko fii tey xeeboo fi nga dëkk waaw kon nag mooy. ñu ngi ko ciy remercier di ko ñaanal gudd fan ak wér ñaanal ko place bi nekk ay place place ci barke Seydina Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam donc euh, lii ñoo ngi koy félicité bu baax parce que lii yombul tey ji ñun fekke nañ ko lu bu muy débuté ak tey donc lii c'est à remercier c'est à saluer ñoo ngi koy ñaanal yàlla ndam ci barke Cheikhul Khadim bu mu gëm yàlla ubbil ko si buntu wërsëg mu doon ay atelier atelier former jeunesse bi parce que lii dafa créer emploi si mbas bi fu mu toll ngay ubbi lu mel nii donc dafa jafe donc c'est à remercier ñoo ngi koy ñaanal gudd fana weer loxo bi wér rek waaw. waaw deux mots moom day ndaw ci Ibou sax quand même suñu waa ji vraiment di ko féliciter di ko encourager di ñëw tey ci bisam bii nii xam nga ouverture boutique am bii mu nekk nii. Euh, di ko wax di Ibrahima jombul dara jomb ko parce que liggéeykat la wax dëgg yàlla xam nga xamee ba léegi ci liggéey lañ xamante. waaw donc ci liggéey laa ko fekk si waat mooy boutique bi bii bu ubbi di ko si ñaanal yàlla rek yàlla ful ko ba mu nekk ay ay centaine de boutiques parce que mérité na ko wax dëgg yàlla parce que tamit liggéeykat moom dara jomb ko waa waaw mais sama waa ji il faut il faut mun a ñàkk parce que koo xamul noo koy def rek koo xamul noo koy def nam la defa tax te moom day suñu waay joo xamante ni ñun artistes yi dañ ko sonal dañuy ñëw fekk mu teg fu jàmbur ñu ñëw ñëw ko ñun ngay ñawal. mu boole kook mën ko nag ak yaru ak gëm ko ibi moom dañ koy ñaanal fii moom barki Serigne Saliou yàlla na ko fi am lu ko neex rek bañ fi am lu ko naqari ci barki Seydina Mouhamed ak mboolem jullit ñun nag daf ñoo boole ci boppam day sol sax ñu ne ko bii lañ bëgg mu bàyyi boppam jox ñu ko kon ibu faaw ñu teew ci bësëm bi bàyyi suñu yëpp ndax Matara jóob moo tax ñu xam ko waaye foo xamante ni seex Yérim sekk mu ngi fay ñawloo foo xamante ni Birane Ndour mi ngi fay ñawloo ñooñu nga xam ne ñoo bëggul lu baax kon fii lu baax a ngi fi kon gars yi ñàkk fee ñëw wóorul de teew leen comme ñëpp. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp vraiment di ñëw ci ouverture sunu frère wax dëgg yàlla lii mu def nii dafa rëy vraiment ñëw ba suñu suñu koñ parce que ñun Pikine la ñu am tu waa moom laa koy wax léegi nee naa ko dañ doon am problème bu ñëw ba Médina donc boo ñëwee ba pikin indil ñu ko fi wax dëgg yàlla suñu xol day gën a sedd. vraiment di ko ñaanal nag fii li li mu fi séntu yàlla na gis lu kawe njortam parce que moom xol xolam dafa rafet te àdduna ku ci nekk sa xol mooy sa yoon bu sa xol rafetee loo yootu da nga ciy jot te wax dëgg yàlla Ibou borom baax la wax dëgg yàlla. teewaay bi nag li ko waral mooy sama xarit sëñ Ibrahima Cissé le grand terre moo ñëw fii tey ci Pikine Technopole bi dafa ubbi place mooy sunu xarit nag bëgg ma man ndax sëñ Touba. loolu rek ma war a sunu teewaay di ñaan daal barab bi mu ubbi fas seen fay liggéey fas yéene fay jaamu yàlla yàlla na ci am lu kawe njortam weer wii nu nekk muy weeru wàccaayu màggal mu ubbee fi place bi maa ngi ñaan màggal Tuubaa ni mu barkele place bi yàlla na barkel de noonu barke xasida yu nu fi jàng sànq barke borom Tuubaa ndax lii mu def daal rëy ci nun lool waaw barkal la maa ngi am mbégte trop ci teew fi teew naa fi ngir euh, Ibou Cissé sama digganteeg moom mu muy kóllëre bu yàgg mu nit ku baax teew naa fi tamit ngir bëgg lu baax te gis ni loolu mu ngi ci yoon bi macha allah di xale bu baax di xale bu am jom di xale boo xam ni mi ngi innové bëgg a dem ci kanam kon nag li war mooy ñu ñaanal ko yàlla ci barke yonent bi ak Serigne Touba yàlla yokk ay xéewalam. ñëw tey ci bisu Ibrahima Cissé bi di nit ku yàlla baaxal di nit ku am jom di nit ku am fulla nit ku xëyante ni ku ko gis da koy fonk ndax dafa fonk boppam nit ba lan laa fonk da fonk sa bopp te Ibrahima day nit ku yàlla baaxal. kon palaasam bii bu nu woowee ni ñëw leen ci dañ ciy ñëw lu ñu jàpp doon koy bàyyi fi réew mi toll loolu lépp nag jikkooma ko bët mën naa xool ko neexul waaye tànk fu dem te forcé wuñ ko borom la neex Ibrahima day nit ku yàlla baaxal kon palaasam bi yàlla na ko ci yàlla defal jàmm defal ko ci xéewal ba mu doon ay palaas yi palaas ndax nit ku yàlla baaxal la nit ku xamante ne am na fulla am na fayda. Ibou dafa nekk euh, sama grand frère nekk baax si man. Euh, place place bi daal maa ngi ñaan yàlla mu barkeel te yeneen topp si incha allahu rabbi ndax liggéeykat la mën na am lu raw loolu incha allahu rabbi ñu ngi koy ñaanal daal yàlla na lum ci yootu yàlla na njiglaayam te gën si moom moo xam nag li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal te mu barkeel. may encore remercier Ibou ci Pastef bu mu am ba ibi lii di ko ñaanal euh, yeneen topp si yeneen yeneen ak yeneen. di wax ne xale bu am jom la ku nangu liggéey la à chaque fois rendez-vous yi may jox daf koy respecte te lool moo ëpp important si doomu aadama donc c'est quelqu'un de de de de vraiment gentil quelqu'un de bien te dama koy ñaanal yàlla mu dolli ko ay yeneen xéewal si barke Seydina Mohamed si barke Serigne Touba mi nga xam ne moom rek laa yàgg. bon maa ngi koy sant di ko gërëm di ko xamal ne teewaayam rëy na ci man lool kontaan naa ci lool di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla fay yiw yàlla nag at rek. ma inauguré benn boutique muy teew ci barke Seydina Mouhamad ci barke Borom Touba. salaamaaleykum alors euh, je suis Madame Cissé la femme de Ibou Cissé euh, je remercie toutes les personnes qui sont venues ce soir euh, pour l'ouverture de la boutique New Fashion Couture et puis bah je prie très fort pour la réussite et le courage de mon mari. xam nga affaire yi moom tamit nii rek mu la mën a demee quoi Ibrahima moom sama sama xarit la. xam nga taaw man la ko tuddee mag moom ñoo fowandoo xam nga di ko ñaanal tamit ci boutique bi nii yàlla na ko si yàlla defal ndam lu kawe njortam xam nga li américain yi di wax from nothing to something xam nga da ngay nekk xale nekk ci koñ juddoo fa yaroo fa màggee fa mais tamit def fa dara quoi ba lu ñu ni ba loo xamante ne nii ku ko gisal dina ci mën a jàkk ne diw mi moom moo fi def lii te tey loolu la def tey quoi new fashion couture. ñu ngi nuyu waa àdduna yëpp bon li ngay wax ci wàllu secret affaire bi moom je crois que amul secret secret bi mooy liggéey rek te ku ne xam na ne loolu mooy yoon liggéey mooy fay nit bu la yàlla am fu mu la jaarale nga juddu fekkoo lépp tegu nga ñëw xool situation yi gis ni mu demee nga ñëw xool bu baax ni affaire yi demee nga topp ci commencé benn fas yéene jëm ci kaw dara du ko maye lu liggéey ak góorgóorlu ak gëm sa bopp àdduna boo ci nekkee gëm sa bopp amul lenn loo xamante ne yàlla teg na ko pour doomu aadama yi nga war ko xañ sa bopp wala nga jàpp ne lii mënoo ko am lépp lu doomu aadama di am boo liggéeyee gëm sa bopp war nga ko mën a am lii nag dama jàpp ne commencement la rek ñaan nañ yàlla at bu ne ñu inauguré benn boutique ci ay lieux yu différent wax nga sànq ba ne lan moo tax ñu def ko fii na Technopole ñun fii lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee xamuñu feneen fudul fii lépp lu ñu am balaa ñu koy def fenn dañ koy def fii ñu juddoo yaroo fi màggee fi ba pare doog ci xalaat feneen bi ñu amee idée bi dañoo peese suñu bopp xool déjà commencé di ñawee fii Sandaga lañ nekk fa lañ am suñu boutique donc bi ñu amee idée bi pour ubbi beneen boutique dañuy toog fi ñu nekk clients yi di ñu fi fekk bon ni ñu fi clients yi doon fekkee xam nañ ne fii war nañ fi am dara parce que liggéey bu fekkee ne yaa ngi koy teg ci yoon di ko liggéey muy baax am qualité amul fenn foo xamante ne di nga fa nekk di def lu baax te nit ñi duñ la fa fekk man zone résidence yooyu ngay tudd sax je trouve que euh, fii moo gën a nekk zone résidence parce que technopole bi ku ko xool tey xam ne beneen xar kanam la may Pikine donc ñun ñi nga xamante ne ay doomu Pikine lañ nekk fi juddoo fi yaroo fi màggee fi balaa kenn di fi def dara ñooy fexe bokk ci ñi fi def lu nga xamante ne da koy taaral donc bi ñu dajalee loolu yëpp nga xam ne dañ ko amoon xalaat ñu ne mais fi ñu njëkk fi ñu juddoo yaroo fi màggee fi balaa ñoo génn di ko defi feneen dañ koy def fii ñu juddoo bu ko defee ñu bokk ci ñi nga xamante ne nii xëy na gox bi dinañ bokk ci ñi ñuy sagoo loolu moo tax tey ñu jël li ñu am ak li ñu amul yëpp def ko fii ngir élargir suñu liggéey yaatal ko te bi ñu fi nekkee yàggagul waaye ku nekk mi ñu fiy fekk donc ñu xam ne fu gën a sori fii bu ñu fa nekkoon ci kattanu yàlla dinañ ñu fa fekk looloo waral ñu def boutique bi fii nit ñi fi nekk tey di wax lu baax ci man ñoom ñoo baax rek parce que nit moom li olof naan koo xamul ni nga koy def rek ni mu la def moo tax te nit kenn du ko lekk kenn du ko naan lii lañ koy dawee nga am bés ñu ñëw taxawu la jàppale la wax ci yow lu baax li ñu xam ci yow soutenir la loolu moo waral tey témoignage yu baax yi nga fi gis tey ñii nga gis ñu toog fi ñëpp ay nit yu diis gann lañ mais oyof toll loolu nag li ko waral sama jëmm ju xeebu ji moo waral déplacement yi kilifa yi ñëw fii tey wax dëgg fa yàlla nekk loo xamante ne plaisir bu mag la ci man tey ñi fi teew ñëpp ku ci nekk am na ñoo xamante ne bëri na ay mbir yoo xam ne xew na fi sax ay nit ñoo ko def rek ngir cofeel gi ñu am ci man ak bëgg giñ ma bëgg ak yëg giñ ma yëg tey lépp loo fi gis ñu lekk ko fi wala ñu naan ko fi Matar Diop suba teel sama xarit moo ko fi indi boutique bii bi ma koy taxawal lu ci baree baree baree baree bari dama ko woo ne ko am naa idée nii kaay xool mun ne ma defeel nii defeel nii bi ma defaree ba pare woo ko ne ko kaay xool pare naa bi mu xoolee daf ne ma amul lu ma ciy dindi amul lu ma ciy yokk def nga li nga war a def bis booy ubbi boutique bii lépp lu ci inauguration bi lépp man maa koy def te loolu yàlla xam na ne sasuma ko ko teguma ko ko mais baax ak cofeel gu mu am ak nit ku baax ku mu xam boole maak moom ñu séq liggéey tey ay kilifa yu bari maa ngi séq ak ñoom wàllu liggéey yàlla ci loxoom la ko jaarale. waaw 2022 nag ñi ngi wax euh, clients yi nga xamante ne ñi ngi ñawloon New Fashion Couture ñi ngi leen ci préparel ay mbir yoo xamante ne bis bu génnee bëgg nañ ñu gis leneen lu bees lu bokkul ak liñ daan gis te incha allahu rabi loolu man maa leen ko promettre ñu ngi ciy liggéey ak équipe bi yëpp di xamal gars yi nag ne ñoo ngi toujours Sandaga ñoo ngi toujours na euh, technopole ku Sandaga gën a jege mu nga dem Sandaga di nga fa fekk Yaya moom mooy gérer gars yi donc bañ na ko ba yenn clients yi sax dañ naan ma yow duma ñëw ci yow ci Yaya laay dem ndax loolu yëpp li ko indi mooy liggéey bu rafet bu am solo bi muy liggéey di ko gérer ak clients yi donc yàlla xam na ne waxuma pour lu neex kenn mais samay clients dañ may woo ne ma vraiment Yaya macha allah ndax daf leen di accueillir accueillir bu bien di gérer ak ñoom lépp luy doxal liggéey bi rek mi ngi ci. donc loolu sant bu ma koy sant la moom moo ma gën a bëgg liggéey bi bëri na yoo xamante ne maa ngi koy def ci liggéey bi moom moo ma koy defloo. di sant équipe bu New Fashion ñëpp ak képp koo xamante ne mës ngaa indi tissu New Fashion ne ñawal ma ñu ñawal la ñi ngi lay sant di la gërëm di wax awma seen fay lii bu amee tey ginnaaw yàlla client yi la. mention spéciale à ma femme sama jabar mi may jàppale li ngay gis fii yëpp ci wàllu décoration biñ ci tollee moom mooy ñëw taxaw ne nañ def lii xam nga man dama rëb dem indi samay couleur bu ne ma eh kaay actuellement monde bi xam nga fa la toll discret tubaabe te lii bi ma ko defaree ba pare ku fi ñëw amul lenn loo may wax dindil wala defal ne danga ma naan nii nga war a def donc maa ngi koy remercier di ko gërëm ak yëkkati xaalis nag des fois ma xaw a kii su ma jàmbatee mu génne ne ma am demal réglé ma dem réglé donc loolu maa ngi ko ciy remercier di gërëm ñëpp ñu fi teew awa mbóoj sama mag samay xarit ñoom ba Badara Gajaga léegi la fi grand Omar jóge Omar saw nga xamante ne moom vraiment def na fi teraanga yoo xamante ne géwél yi mu fi fekk nga xamante ne man maa tax mu fekk leen fii tey la leen di doog a gis ku ci nekk mu may la trois pièces grand boobu suba jaaral bureau ma ñëw mu jox ma xaalis bi ne ma demal nga defaral leen ay jesner te ku ne xam na ne grand boobu jesner moins de deux cent mille mayewu ko donc mu defal leen ko loolu man la ko defal defalu leen ko maa ngi ko ciy sant di ko gërëm di sant sama waa famille sama waa famille ñoo ma gën a jàppale di sant sama grand frère ndaam Cissé tey ginnaaw yàlla lépp lu ma am ci wàllu ñaw moom moo ko def parce que ba jàng métier jotee moo ma jël jàngal ma métier teg ma ci yoon ma jàng métier ba mën a demal sama bopp donc tey lu ma am rek maa ngi ko koy sante di ko ko gërëmee di gërëm samay doom di gërëm samay xarit bàyyiwuma kenn maa ngi gërëm ñëpp di sant sama yaay di sant sama baay di sant tout la famille ak képp koo xamante ne xaritu Ibrahima Cissé nga rek maa ngi lay nuyu di la ziar di la wax ne kontaan naa ci yéen ñëpp di ñaan yàlla at bu nekk chaque at bëgg nañu inaugurer new fashion bu bees tax ci ay différents endroits merci beaucoup. Olof Njaay dañ ne ku def la la war ci la wër waaye Pape Góor gi nag def nga li la war ndax Ibrahima mii day nit ku yàlla baaxal nit ku am jom nit ku am fula nit ku xam boppam nit ku xayante ni lii alaaji caam mii sama mag ji wax rek moo dégg jom ak fula ak fayda lan la xamee. kon tey jii boo ñëwee tey def lu mel nii monsieur le ministre góor gi Ndong ñëw sa jikko la ko may ndax góor gi nag xam naa ko nit ku yàlla baax la ngi nii nit ku xayante ni bi ko président dénkee li mu ko denk liggéey na ci liggéey bu rafet am ci way rafet kon Pape gi boo defee déplacement ak fekk na fi ñun communicateur traditionnel yi xam nañ yow yaay kan kon yal na yàlla gudd a sofan lii nga defal Ibrahima Ibrahima xolam sedd na waaye ñun ñii ko fekke sunu xol sedd na ndax nit nit booy ànd ak moom dalay jëriñ te lay wan ni man bëgg naa la safoo naa la te bu la neexoon tamit nga ni ko fi réew mi toll la dama yónnee délégation ak ndox mi démb ndox mu bëree la wàcce ñu bëri sax moo ndox mu bëree bëri wàcc am nga la amoon nga ngànt nit nag kenn du ko xebal ñett yi bisam ak soxlaam ak sëriñam kenn du ko xebal kenn kon Pape Góor gi ñu ngi lay ñaanal ci barke Seydina Mohamed yal na yàlla guddal sa fan yal na la yàlla defal jàmm may lay xéewal lii nga defal Ibrahima ñun kontaan nañ ci sunu xol sedd na guy ndax Ibrahima lu ko way defal ñun nga ko defal. ama wasid salama waskur xilama li wa bi nay يا سل إرادة يا سل إفادة خالص أحد لبغتني خنقتي داء زنقتي داء زنقتي داء بلا خنين أسافقتي fa'i bila jafa'i طيب خاسائي طيب خادي يا سلو جودي كل بجودي واجعل جودي فوق لدي حبل وداد قل المراد يا من أفاد بلا كري salli wa sallim alal mutammim wa kulli yaasim bilanti hay xadi suñ Tuubaa waaw loolu mënoon ñàkk ci bis bi maa ngi euh, nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam sant leen bu baax a baax nag ci teewaay bi. Ah, Ibrahima nag duñ mën a wax ci moom lu bari ñoo dëkk puisque boo defee ñetti pas fii nii sama kër mu ngi ci ginnaaw kon moom dañoo nekk dëkkandoo ba pare bokk commune bi bokk génération kon li ñu bokk bari na mm. bokk it benn yëf mooy liggéey. lii nga xamante ne day def na ko fii ci biir banlieue bii ah dafa am rek loo xamante ne dafa commencé soppeeku te génération bii laa ci gën a yaakaar pour ñu soppi ko mooy lépp loo xamante ne lu baax la ndakaaru la war a nekk investir ci biir banlieue bi risque la waaye risque bi il faut nga jël ko pour mun a soppi fi nga xamante ne foofu nga dëkk puisque c'est pas du ay autorité du ñeneen ñooy ñëw soppi ñu fi ñu dëkk banlieue lañ waaw waaye c'est pas parce que banlieue lañ que lu rafet daf ñu jomb wala lu baax daf ñu jomb lu baax feneen rek war naa mën a baax ci ñun te keneen du ko fi indi ku dul ñun suñu bopp kon boo jëlee le risque jël l'engagement la nga xamante ne yaa ngi koy def ndakaaru di ko def feneen mu rafet nga ñëw ne fi nga dëkk fii ñii ci biir banlieue bi dinaa ko fa def loolu boo ko defee defaloo ko sa bopp mën nga ko njëkk a defal en tant que autorité maire dans cette commune waaye it def ko au nom de ta génération kon yow dañ laa war a sant gërëm la te balaa boutique bii di am dafa am loo xamante ne tey moom moo indi sax relation bi bi ñuy defar terrain bi mini foot gazonné bii di ko jagleel ndaw ñi ñi nga xamante ne tey ñoo fi nekkoon di liggéey sans pour autant man ma demander la ko li ñu soxla woon ci matériel yëpp yaa leen ko doon jox muy courant di leneen ak leneen donc ça c'est une participation citoyenne boo xamante ne yow gis nga ne da ngaa war a participer dans l'œuvre de construction nationale doo xaar kenn ku la ko laaj doo xaar kenn ku la ko wax loolu it malgré ni jamono bi di xatee yëpp loolu pesé na ci li tax mënuma fi woon a bañ a ñëw c'est vrai que dama jógee nii ci benn rencontre boo xamante ne moom laa doon def ma ne même bu ma fa fekkul kenn dinaa ñëw pour encourager la féliciter la réaffirmer la it sama disponibilité ak sama soutien ci lépp loo xamante ne xalaat nga ne ñun mun nañ la ko ci accompagner sa sera avec beaucoup de fierté lañ koy defee kon yow ak équipe bi nga xamante ne moom nga àndal yëpp muy soxna di mbokk di xarit ñëpp ñi nga àndal def lii maa ngi leen di sant au nom de toutes les populations de la commune d'avoir choisi la commune de pikine west pour investir mais aussi féliciter la au nom de ta génération bi nga xamante ne tey jàpp nañ ne yëf yi li koy soppi du wax jëf a koy soppi te ci biir jëf jooju nag lu mel nii da cee bokk tey lii nga xamante ne indi nga ko fi dina tax ba li nga waroon a dem jëli Sandaga wala nga dem wuti ko feneen wax dëgg yàlla war ngaa mën a ñëw nag def ko fii booy konte nag ci premier agent marketing war ngaa mën a jàpp ne monsieur le maire bi nga bokkal volontaire na pour nekk sa agent marketeur ci lépp loo xamante ne tey yaa ngi koy liggéey pour la promotion de cette boutique mu am aura bi nga xamante ne tey ñeneen yi am nañ ko puisque banlieusards yi am nañ nag particularité dañuy sot sot bi ñuy sot nag il faut nang leen ci boole rek boo leen ci boolee rek ñu sotal la kon sotal boobu lay demander maintenant aussi population bi ñu ñëw pour won la ne tu ne t'es pas trompé du choix d'investir dans la banlieue et ça c'est avec seulement les populations de la banlieue nga koy mën a amee mun koo def kon li ñuy ñaan yàlla rek mooy yàlla na fi yàlla def xéwal def fi barke def fi loo xamante ne di nga mën a rivaliser les plus grands du monde à partir de la banlieue donc loolu nag duñ def leneen rek lu dul sant sant yàlla sa demandé la nga sant bu baax a baax say wayjur sant ñi nga xamante ne ñoo lay jàppale ñëpp communicateurs yi nag kenn mënu leen fay bu ñu déplacé woo ba ñëw fii c'est parce que da nga koo seq ak ñoom que nag ci lu baax la ñuy dox waaye ñàkkuñu fayda ñàkkuñu fayda ñàkkuñu fulla ci loo xamante ku leen yëg rek lañ mën a yëg boo leen yëgul ñu dem seeti keneen ku leen yëg parce que ku ci nekk nag ca la nga nekk ba toll nii boo mun nga caa continuer kon yëg-yëg rek moo am solo ci àdduna bi nga xamante ne ñoo ngi koy dox kon lii daal mooy li nga xamante ne buggoon naa ko ci sànni comme kaddu le développement nag ne se décrète pas sa se construit mm-hmm. te ci construction boobu noonu dañuy xàllu yoon yoon boobu la ñëpp di dugg ku ci nekk ca la nga xamante ne mooy sa talent nga exprimer ko au vrai di du mot loolu yëpp boo ko agrégé nag ci ngay am nag un développement bu bu harmonieux kon à toutes à tous maa ngi leen di sant ci seen teewaay gërëm leen bu baax a baax di leen di baalu àq di leen di baal àq rëjëf asalaamaaleykum maa ngi nuyuwaat ñëpp di kontaan di remercier bu baax monsieur le maire ci teewaayam fii tey comme ni mu ko waxee sànq rek ñoo dëkk fii xamante bi yàggul mais rafet na comme li mu wax sànq xool xalaat ba may def lu baax loolu sax xalaatuma woon ne sax dinaa am ak moom relation boobu dama doon def rek te yàlla tax ki gere woon chantier bi dafa ñëw ne ma chantier bi dañ fi war a defar terrain. Euh, de football gazon bi moo koy expliqué ne ma dañuy soxla l'eau ak électricité mën naa la gérer say facture nga jox ñu ko bi ma ko waxee man ne ko saay mu ne ma naan ma ne ko man fii laa dëkk doomu Pikine la doo ñëw fii di fi soxla ndox ma la fayal facture indil sa raccord nga branché utiliser li nga soxla électricité la même chose mu ne ma non damay mën a ko noonu de façon comme yàlla def na ko fi mi ngi fi amuñu dara nag mais comme mi ngi fi. utiliser la ndax li ñu doon soxla yi bariwul bari goo xamante ne da taxaw di fayloo nit facture wala nga naan ko jox ma nangam wala da def rek te yàlla tax. def te yàlla tax boobu tey moo waral teewaayu monsieur le maire fii. te teewaayam bii lu rëy la ci man. xeebu ma ko. te it wax dëgg yàlla maa ngi ko ciy sant di ko ci gërëm te keroog bi ñu taxawee fii daf ma wax wax bu am solo daf ne ma li nga def gestu maire la yow maire nga. patriote parce que nit boo nekkee ci dëkk nga gis ñu fay defar loo xam ne lu baax la tey dañ daan dem ba ay dakaar Sacré-Cœur di dem fu ne di fa fay di fubal tey loolu ñu doon dem di fekk ji foofu bu ñu ko buñ ko amee fii dañ ciy sant yàlla te man terrain bii gëm naa ne dinaa fi indi ku ne pour mu ñëw fubal si fii loolu am naa ci yaakaar te xam naa ne dinaa ko def incha allah te loolu lépp aussi buñ ko fi amul woon xëy na duñ ko mën a am donc côté boobu lim mu ma waxoon jàpp naa ko te aussi dinaa ci gën a góorgóorlu sant ci yàlla bu baax nag ci teewaay bi mu ma teewal ak ñi mu àndal ñëpp maa ngi leen di remercier donc di la wax ne vraiment kontaan na ñoo ngi fii ñoo ngi fii te ay ndaw lañ yoo xam ne liggéey rek moo ñu ñor du ñu tàllal loxo mukk di ñaan tant ñi ngi mën a liggéey liggéey la ñu gëm ci lañ ñu yar moom lañ xam donc di la wax na rek lépp loo ñu mën a jàppalee ci suñu liggéey jàppale ñu ci donc loolu daal laa xam ne amoon naa ko ci comme lu may sànni ci kàddu yi maa ngi remercier ñëpp di kontaan ci ñëpp merci na ngeen def di nuyu di leen ziar. di leen ci New Fashion Couture. sama papa Ibrahima Cissé. ci New Fashion Couture maa di nuyu di leen ziar di naa ko ñaanal am ay bitig yu mu ay bitig bitig bitig ni am xaas bu bëri am kër maa ngi di nuyu nag di